thank you asalaamaaleykum mbokki xarit ñu seetaan suñu émission débat en ligne ci actuthies.com tey di ñu invité kenn ci ay responsable politique fare ci parti bu APR waaye tamit ñu gis tamit mu amoon beneen engagement muy Habib Niang dëkk fi commune bu Thiès Est tey moom la ñu dalal mu nekk rek loo xam ne dañ ci euh, euh, xuus dañ koy bàyyi d'abord mu nuyu ak mbokki xarit ñu seetaan ci actuthies.com c'est bon. asalaamaaleykum euh, waa Thiès. maa ngi leen nuyu kenn si nekk si turam ak santam aussi di remercier. Actu Thiès Actu Thiès. jërëjëf dama jum Actu Thiès ah di remercier aussi Thiès waa yëpp particulièrement man sama DG le DG di Siré Dia Pape Siré PCA de la LONASE di jël nuyoo boobu nag di ko teg ci moom mu jàllale ko képp kuy Thiès waa fu mu mën ci nekk maa ngi leen di nuyu di leen jaar. alors euh, très bien foofu rek la ñuy tegagum baaraam muy ci Pape Siré Dia di PCA bu LONASE nekkoon fi DG bu poste alors Habib sa relation ak DG lan la ak fan la toll. ok waaw kooku Omar dinaa ci sawar a tontu ko ak bu baax a baax euh, mu ngi relation bu extraordinaire boo xam ne nii képp kuy ceesuwaa nga nekk ci moom nga ñàkk bañ a nekk ci moom sax suñ la laajee ci moom war ngaa mën a tontu. Euh, xam naa ni su ma toogee fii sax ba nit yëkkati micro di ma ko jox c'est grâce à lui. parce que yàgg naa politique nekkoon ci beneen parti bi ma ñëwee ci parti Siré Dia bi ma ñëw sax du woon man kese képp ku ma xamoon koo xam ne nii bëgg naa ni ëllëg nga jariñu ci ah ànd naa xale yooyu ñëw di liggéey ak le DG Siré Dia kon relation boobu relation bu extraordinaire la. mais sa engagement politique ak moom. waaw fi ñu toll nii tembe. merci engagement politique bi ma ñëw en 2017. bi ñëwee mille 2017 ñu waxoon ko ne ko 2019 dinañ na jox élection présidentielle dès le premier tour bañ nañ ko or t-shirt ñu soloon looloo ci am premier tour ñoo ko def yàlla dimbali ñu Macky Sall génn premier tour boobu ba léegi nag arrêté wu ñuy jàppale Siré ci tous le plans mu génn mu ñàkk génn ñu ngi si moom beneen bi ci des aussi engagement bi sax dafa dafa dafa dafa tey la gën a yokk ko tey jii lañu sax war a gën a mën a takku pour préparer échéance yi ñu jëm si kon engagement bi ba léegi mi ngi fi dafa defoon dafa yàlla dafa desoon nag aussi ñu xawoon génn tuuti nekkoon côté gaaya yàlla def base bi ay ñoom Abdoulaye Fall ñoo fi nekkoon sama grand la ma koy remercier de passage ak Moustapha Dabo Vonder ñi nga xam ne nii tey képp koo xam ne nii ñoo ngi maa ngi ànd ak moom di liggéey sur le plan politique ñuy jàppale Pape Siré Dia fi je suis dama génnoon rek demoon gars yi mais actuellement nii may waxee ak dañoo ñëw sax pour takkuwaat bu baax a baax moo waral lii. pour ànd attaque moom Pape Siré Dia dañoo ñëw. donte ni divorce amul woon seen diggante. non non non divorce da ngay féddaliwaat colère bi. non a réaffirme mon engagement envers le DG Siré mm-hmm. mm-hmm. Dia. daf ñu defal loo xam ni nii nit mësuñu koo defal Thiès. alors très bien Habib naka ngay jàngatee situation bi xew ci réew mi euh, ci mois de mars bi nga xam ne moom lañ génn mu mu gis ni ndaw ñi fipp nañ jaare ko ci benn mbir muy affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñu gis ni Thiès euh, xëy na daal da amoon na yëngu-yëngu waaye donte bëriwul tey yéen nag ngeen koy jàngatee yéen ñi nga xam ne ngeen fare ak Pape Siré Dia. waaw loolu dina ngeen dina neex tontu parce que tey soo gisee tey mu am Thiès jeunes yi dala duñu lool jeunes yëpp a ngi xëyee ko kon jeunes yëpp Siré Dia kon ñoom amatuñu jot boobu di génn di xeexal kenn di ko commencé ci man mii di wax ak yow su ma xëyee c'est grâce à Abdoulaye Fall keneen ak keneen jeunes yi su ma la ko doon lim du jeex kon ñun dalatuñu génn di xeexal kenn parce que jeunes yëpp si rajo wutal na leen liggéey kon mënatuñu génn di xeexal kenn moo tax Thiès teg. dara amu fi kon loolu war a teg teg carrément bien sûr moo tax Idrissa bi. waaw surtout ça tamit loolu tasa tasante ñëw la président Idrissa ci mburoog sow bi. jeunes yi daan def loolu ñoom it te ànd ak xam nañu yenootul maanaam c'est ça le problème ñi fi des si rajo yi wutal na ñëpp liggéey. ak soow yéen yéen a koy confirmé. bien sûr gis nga nguroog xam nga lu tax euh, Siré Dia boo xam ne ci Thiès responsable boo xam ne dootul mel ni dama dama nekkoon man parti bi ma nekkoon bi ma jëlee choix ànd moom. pour wax la tuuti rek ci mbir ak mbur ak yàlla dafa def bi ma àndeek moom ci diggante pour wax la ci mbur ak soow bi ma gisante ak le président Idriss ma koy nuyu de passage di ko jaaree la ci toolam bi quoi. voilà effectivement def la ci toolam ma dem tool ngeen toog waxtaan. waaw jógee fa ñu dem hôtel Lamantin mm-hmm. de passage may jaale Idriss ci Abdou Karim Manga yàlla ko yàlla xaaree aljana parce que fekke na mi ngi toog. Sayer le maire Sayer Mangane mi ngi toog Mbaye Dia voilà mi ngi doo ak François Fall bu randu leen yàlla def aussi tamit jotaay bi xawoon yaatu parce que boobu amoon na ñuy fàqee ci ci réew mi di dem APR mhm. di ñëw APR ci Sirédia loolu tamit question yooyu président Idrissa posé woon na ko si jamono yooyu lan moo waral lii ainsi de suite moom it ci biir waxam mi ngi may wax ne ma tey Thiès su ma yàlla dimbali woon ma nekk président de la république war a ma am ndomba tànk Siré Dia am dafa yaatu damay liggéey ak moom parce que ni ma gisee Thiès léegi jeunes yi. moom président Idrissa Seck. wax na ma lii bés ci làmmiñam ci témoin yii ma la wax parce que wax na dëgg parce que ñun ñu ngi ne jóge woon réew mi rek dañoo bari te tey ñun ñu ñëpp dañoo jëriñ. maanaam yéen ñëpp da ngeen transhumé woon. dem fekk ci Siré Dia dem ci Siré Dia di liggéey moom Siré jàppale Macky Sall. Mm-hmm. Siré Dia def def ñu ni ñu def tey. Mm-hmm. xale yëpp kenn taxawaatu mm-hmm. alors euh, très bien euh, tey jii ñu gis ni euh, Siré Dia PCA bu LONASE la ah. tey yéen ngeen nekk ay ndaw nekk ay responsable di ànd ak moom ngeen def leen jàppale ci ay këy moom moo tax sax tey ñu leen tàll ay micro alors tey jii PCA la est-ce que position boobu yéen lan ngeen ci xalaat ak ban appel ngeen di lancé ki nga xam ne moo jiite Sénégal rawatina tamit Idrissa Seck. appel balaa ma koy lancé sax ci le président Macky saal dama koy jiite ci le président Idrissa. Idrissa Seck waaw. Ah. nekk naa moom si moom boo jógee. ba ñëw di jàppale day si rajo mosuma ko ŋaañ mosuma wax si moom wala mosuma wax dara képp ku nekk réew mi xam ni mosuma wax ci réew mi tey laa ji soog a wax. parce que Idrissa moom personnellement personnellement moo ma waxoon ni ma bés dinañ ñëw su ma yàlla mayeen domba tànk si rajo dinaa ko jël ànd ak moom liggéey tey ñun ñun Ceesuwaay ñooy lancé appel boobu ci moom. maanaam mburok soow bi nekk Thiès d'abord mburok soow bi nekk Thiès. mu commencé Thiès. xam nga fu mu war a commencé. Hmm. ci Siré Dia kese rek képp dong. maanaam yéen quoi. waaw dama ne maanaam yéen maanaam yéen da ngeen ne tey mburu ak soow mi. ci Siré Dia la commencé waaw lan moo tax wax xoolal Idrissa Siré Dia dafa ko a commencé xam nga lu tax loolu daf ci def daf def ci lu kenn deful su ñuy wax ay mille jeunes mille jeunes Siré Dia la te gis nga tey Macky Sall ñu ngi wax am emploi des jeunes Macky Sall ku ko njëkkee Thiès Siré Dia mu wan ñii nga xam ni mii ñi naan organiser ay forum emploi des jeunes ak yooyu Siré Dia moom personnellement ba mu ko commencé du tey kon dañ ko war a dooleel yokk ko doole Thiès loolu la président Macky Sall appel boobu la ñuy def ci moom mu yokk ko doole Thiès parce que tey mais kuy raam di la di la di la yóbbu mais su jógee Thiès waaye dañuy liggéey ku dul Thiès di nga ci jariñu kon leneen sax ñu koo mën a xalaat Thiès ci lu jëm emploi te tudduñu Siré Dia la Macky Sall war a dooleel it euh, wax nga ko réitéré nga sa appel bi ci président sa Seck euh, tey euh, mais tey li nga xamante ne moom moo xew Louga ñu gis ay nit jóg daal ko tuur si la jaar loolu lañ bëgg rek nga wax ñu ci tuuti ñu tëjee émission bi. voilà Omar mooy dama tudd sax léegi tur ñoom waa Louga xam nga ñu ngi Thiès suñu demee bay wax jóg di ci wax kon ñun Thiès waay ñoo ko waroon njëkkee ñun Thiès waay ñoo waroon njëkkee li waa Louga yuuxu. mooy troupe yëpp génnaat remobiliser ñëpp parce que ñun nag Thiès si Dia lañ fi am mairie bi si Dia lañ fi soxla képp ku ñu waay mën a proposer lépp lu waay mën a def Thiès waay Siré Dia wax suñu mairie élection locale kon dañuy lancer appel bi le président Macky Sall wàcc ci président Idrissa mi nga xam ne nee nañ mburu ak soow te yàlla def na am na ba pare leader yëpp nag ñu ngi jóg ku nekk a ngi jaar fii ku nekk a ngi jaar fii ku nekk a ngi ba si rajo jógee kenn jógul ba mu defee kenn deful ana jàkka yi doon am uh, ay ay ay ay financement ana ana ana ci mm, mm, jumaa yi ana femmes yi doon am financement groupe groupement yi da nga koo dégg ana ana mbër yi doon dem ana football ana football bi ana basket bi mais loolu lépp durant li si rajo di nekk Cees yëpp te ba tey mu ne fi mais loolu kay suñ koy wax ci financement si rajo tax parce que moo ko defal ñëpp. kon nag jot na tey Thiès ñëpp jóg takku jógaat sax laay wax le président Macky Sall comme que élection locale lañ jëm ñu ngi koy lancé appel boobu mu Thiès waaye Siré Dia la ñu choisir Siré Dia la ñu choisir le de la Lonase pour mu jiiteel ñu suñu mairie bi di wax aussi Omar di remercier Thiès waaye yi nga xam ni nii tey bañ jàppee ba tey bàyyiwu man mii di wax ak yow Siré Dia ma bàyyi ci politique mooy stafu Séex quoi. je te jure que je parce que aussi lu ñu mel tey moom la lu ñu am tey si Dia la man de je réaffirme mon engagement envers le DG Siré Dia te à vie la Omar parce que Serigne Babacar Sy. c'est un mariage éternel alors euh, très bien foofu la ñu tëjee émission bi kàddu gu mujj gi laata ñuy tëj. waaw di remercier waat le PCA de la LONASE. di wax jeunes yi nga xam ne mii ñoo nekk Thiès xam nañu bu baax kan mooy le PCA de la LONASE muy Pape Siré Dia képp koo xam ne nii bëgg nga suñu ndam Thiès waa yi nañu ànd ñun ñëpp jóg il est temps heure bi jot na ñu jóg ànd ak Siré Dia parce que élection locale lañ jëm te comme ni ma la ko waxee léegi rek dafa am coalition bu ko bokkal muy waa waa réew mi bu président Idrissa kon jot na ànd googu muy Idrissa muy Siré Dia ñu fësal ko jóg jël mairie bi teg ko ci loxo très bien mbokki xarit ñu doon seetaan suñu émission débat en ligne ñu doon invité kenn ci ay responsable yi sukkandiku ci Pape Siré Dia di PCA bu LONASE di leen jox di rek ci beneen numéro incha allah.